Thank <laughs> you. Toujours dans votre acte du jour de ce vendredi 19 avril 2024 sur la chaîne des grands événements VIP People TV s'informer juste vrai suñ jógee foofu dañuy dem fële ca poste ginnaaw bi nga xamante ni ñu ngi leen doon xamal ne daal que kii di poste dafa daal di licencier lu toll ci 200 employés foofu ca poste en tout cas lii di syndical national des travailleurs de la poste daal di nañu démentir li nga xamante ni mooy licenciement bi nga xamante ni waral deux employés yooyu ñu dàq leen suñu sukkandikoo ci information bi nga xamante ni reprendre nañ ko jëlee ko ci quotidien yi nga xamante ni ak journaux yi nga xamante dañu wax li nga xamante licenciement ñaari téeméer ci ay kat yu faut fofu pour poste ginnaw biñu len avéré li nga xamante ni mooy daal di dakkal il faut faire pour poste ki di Ahmed Diouf euh, di secrétaire général syndicat national des travailleurs de la poste mom dal ci travers ben petite envoyé bo xamanteni yoné nako nos ci suñu rédaction qui di Ahmed Diouf mi ngi tenir pour préciser que lepp lo xamanteni tay ñing koy ay travailleurs yu société nationale de la poste ak ki di secrétaire général syndicat national des travailleurs de la poste ñom ci sen bop ñi ngi ñëw ci turu li nga xamanteni moy mooy seen devoir démentir li nga xamanteni moy ay fausse allégations la jëmele ko ci rétablir li nga xamanteni moy mooy dëgg ci fait yi nga xamanteni ñing koy annoncer ginnaw bi nga xamanteni quelques années li nga xamanteni moy poste dafa doon traverser ben crise té amul ben précédente ginnaw lool dal lu tolu ci 4000 employés yo xamanteni suñu sukkandikoo seen masse salariale dina tolu ci 18 milliards par an li di directeur général bi depuis bobu dafa opté li nga xamanteni moy non renouvellement jëmale ko ci ay contrat yo xamanteni à durée déterminée la jëm a déterminé muy CDD ginnaw lol dal si la ñëw fi nga xamanteni moy ci ben terme bo xamanteni ainsi que suñu xolé 300 contrats yo xamanteni ben benn yoon kenn renouvelé wu leen atum 2023 ak 200 yo xamanteni atum 2024 la mu doon ben politique bo xamanteni dafa viser won pour ñu rétablir li nga xamante ay équilibre jaarale entreprise ci conforme wu lii nga feuille de route bi nga xamante ni képp kuy autorité tracé actuel directeur général bi une nomination en octobre 2022 m'ont indiqué mon syndicaliste par ailleurs daal mi ngi xamal que daal lépp loo politique conformément dafa plan stratégique expansion des plans Sénégal émergent l'idée di poste pour 2023 2025 dafa am ben programme phare bo xamanteni ni dafa sukkandiku ci développement bi nga xamanteni mom lañu tuppé capital humain suñu sukkandikoo ci rationalisation bi nga xamanteni lépp luy effectif en tant que qualité de secrétaire général d'un syndicat moom de façon à se défendre lépp luy intérêt matériel ay moraux boo xamante ni liggéeykatu poste yi ñi koy am en tout cas mi ngi dénoncé avec énergie lépp loo tentative la boo de vous vouer voué jëmale ko ci échec boo xamante ni lépp loo xamante ni ay nit la yoo dañu tapis à l'ombre uniquement pour Ama et intentions yoo non c'est non loyable par rapport ak li nga xamante ni entreprise en tout cas li nga xamante ni personnes yoo licenciées ni licencié nañ leen foofu ca poste te précis yi daal relaté kii di président syndicat bi xam na ni que loolu amul poste bi muy traversé ay crise ginnaaw bi ñu donné 4000 employés sen euh, salaire mensuel tollu ci 18 milliards par an li di directeur bi dafa jëlone décision ba a renouveler bépp contrat bo xamanteni à durée déterminée la manam muy CDD donc ñu am ñoo xamanteni sen contrat 2023 la jeexoon ñi nak sen contrat dafa jéx 2024. manam ken quatre son renouveler contrat mais du question ni que dañ leen licencier ndax c'est sen contrat mo jéx ak li nga xamanteni moy groupe poste mais dafa am ay nit yo xamanteni dañuy tapis à l'ombre pour nuire li nga xamanteni moy entreprise bi motax ñuy véhiculer li nga xamanteni moy ay fausses formation muy ay cadre ki nga xamanteni mo yor syndicat wa poste Thank <laughs> you.